leen wax naa leen ko tey nag ah, xale bu jigéen bi la ab xale la ndax fu nekk màgget lañ koy ooyee na meer <laughs> ah jigéen bi bala maa nekk meer di nga nekk meer man mii man damay exercise exercise léegi ndax man yow da nga xam ne man damay exercise la du ma exercise di eat healthy. di uh-huh. eat healthy. léegi man lu may def. yow. waaw xooluma sa lekk bi de. ku ne yow Fatick yaa ngi ci afra yi. ah Youssoupha Safé. yaa ngi ci afra yi de. yéen kii tooñ la mu bon. ci afra yi de. waaye Fatou yow soo amee programme temps bi ngay gën a rafet. Ah, parce que naa la nooy defee nga waaye bala nga ma koo wax. <laughs> doo ma doo doo ut gars yi ñu ñëw. ñan. paa yi. ku c'est baax waaye ñu liggéey rek. Ah. xaalis ut xaalis moo. ut xaalis jeex. déedéet waaye lan la dul jeex say tamit mun naa jeex bi xanaa du sa yoon naa. ah kon jeex na US <laughs> ah, Beauty Supply and Hair Studio ana suma njëkkee suma njëkkee mooy jaar si suma mèche yu rafet ah, all the time s Diouf US Beauty Supply and Hair Studio kooku na mu dara de waaye suma njëkkee la leg dama bëgg nga waxal mako waaw anti yama Diouf. waaw sa mes lan la. waaw. anti yama Diouf sa mes lan la. borom Atlanta do no ngeen di wax. ngeen di xajaan la. Atlanta Atlanta Georgia. yow gis nga fatu Camara num bare affaire kon nak ñu ngi ni préparer nar a def jakarlo bi ku mun sa morom duma. ana Camara. Ano hall ma ana sa outfit la solte si ko be si su waaw suma mag mooy suma ko Wow. suma sister la sa sister la waaye ñooy wujje jëkkër ma rek la bëgga Wow. oncle Lamin Lamin Lamin kam suma suma Lamin ah Lamin Jaata ah yow oncle Lamin man rek la bëgga ah <laughs> ana I love you so maa ngi nii ah, kañ let's go